mooy faramaare bi parce que faramaare yi nii fi métti na leen lool lool lool kon yow li ngay wax Wally Seck nan la war a mën a fajee lii Sénégal tey nag li ñuy waxtaan mooy Wally Seck ak ak Sidi Diop ndax dañoo gis dañoo gis ne léegi dañoo bëgg comme yow xam naa ne wax li nga wax leer na mais man baay ma rek man maa Mister Shake dinaa la poser ay question direct nga xam ne dinañ ci wax léegi li ma lay laaj mooy est-ce que li Sidi Diop def pour yow euh, loolu dafay yàq wala dafay defar est-ce que normal na Wally sekk di créer buzz am. waaw li ma jaaxal parce que man li ma jaaxal nan la Sidi Diop xamee ak Matar Soubatel ne Wally Seck mi ma préparé Marodi. man d'accord naa sax bul ko teg misère ndax bul ko teg misère. Wally Seck quoi yëngal bu baax wax ci wax ci mbir yi wax ci Wally Seck Sidi Diop temps ñu ngi lëmbee réew wax ci yeneen jajah te jajah te sama gars bom moom gis ngeen man la monsieur Cheikh ak Griff Griff doo taxaw yaa ngi mel ne ku gàtt. yow surtout. <laughs> war tukki gaar fi sama waa ji monsieur Cheikh. waaw waaw. nekk downtown Starbucks. waaw waaw ñuy Manhattan fi mu nekk nii si benn Starbucks cafe gis ngeen ndeysaan xam nga Griff moom daanaan la mu ne ah xaaral rek balaa may dem fan nga wax ne ngay dem noonu sax Espagne. balaa may dem Espagne xaaral ma def benn escale. sama waay monsieur Cheikh gars dinañ leen defal show yu neex lii benn introduction rek la Griff moom gis nga ni ñu ngi Starbucks war a jëf jot door door benn ndékki bu ndaw rek jajëf tey jajëf tey sama gars yi bon man la Mister Shake depuis Brooklyn New York Griff maa ngi nii ex doog a exi yaa ma woolu maa ngi jugee ba Brooklyn loo bëggoon tey yóbbu ma fan nga may fan nga may yóbbu tey fan la dem dañu suñu hôtel nii rek toog waxtaan sa hôtel la dem sa hôtel moo nekk nii bëgguma sax joxe tour bi mais sa hôtel ngi nii après buñ kon kon gars top leen ma topp leen Mister Shake xam ngeen man maay Mister leen man dama leen di indil breaking news dama leen di indil xabaar xibaar ndax ñëpp xam nañ ne Griff Sougou mi kon nag lu def dañuy dem rek egg ci biir ñu xool bu New York fu muy dal nu muy dalee ak waxtaan bi nu muy jaajëf tey gaay comme ni mu leen ko waxee man ak Griff sugu gis ngeen ñu ngi ni expliquer na leen Griff dafa ñew New York war dafa doon wara dem Espagne mais comme man New York la nek mu woma parce que xam ne man may Mister Shake my breaking may joxe breaking news yi léegi dafa dañu ñew pour waxtaan ci actualité Sénégal tay nak lu ñu waxtaan moy wali sec ak ak Sidi Diop ndax dañu gis dañu gis ne Euh, ci chambre chambre kii la ñu nekk nii chambre hôtel am dañoo gis ne Siri Diop dafa génn benn way way Youssou Ndour bu ñuy wax bul ko teg misère reprendre ko Wally Seck reprendre way papam bu ñuy wax Marodi génn ko mais li jaaxal nit ñi mooy ci même jour bi même fan bi bis bi même Siri tamit daal di def lu mel noonu way wayu euh, Thione Ballago Seck man déglu naa ko démb euh, nu mu tuddati Marodi bi way bu neex sax Wally Seck way way Youssou Ndour way bu neex bul ko teg misère mais nak nit ñi dañ ne lan mo tax Sidi Diop top wali sec li ñu wax marquage à la culotte mel na football nga nek défenseur rek ni numéro 10 bi kama koy top fu mu dem top du lu wali sec def rek nga def parce que 5 bi wali sec dafa waroon teug 5 Sidi Diop dem teug 5 après amna sax benen affaire bu amone mais légui damay baye Griff su mu joxe ci xalaatam Griff lo xam ci lolu wa xam nga <clears throat> showbiz dafa doy hmm te so xolé ba xol euh, man ci aduna lima war moy tëddee ndey ji seex. dëgg la xam nga euh, tëddee ndey ji seex. Mm-hmm. mooy Waly. Mm-hmm. suma xarit suma sama xarit la. dëgg la Waly moo koy xam xaw ma Sidi Diop. dëgg la te Waly su dee benn fan seq nañ teraanga man ak moom. dëgg la mu nekk nit ku baax mu nekk nit koo xam ne tamit fekk na ma ma nekk si ay situation fii Amérique. waaw yàgg na mu génne ma kon xam nga Waly Seck bu baax ndaw la. waaw jamono tamit nekk suma xarit mu nekk jigéen bu baax. dëgg la soxna Aydara soxna Aydara nekk jigéen ju baax macha allah. doomam mu ngi juddu fii sama kanam la juddoo fii Mouhamed. waaw daaw Waly Seck. kon Sidi Diop. tamit nekk suma rakk. maa doon fekk si soirée Salam Diallo. dëgg la. ménageur ma daal suma teel. nekk suma grand tamit. ménageur Waly Seck tamit. nekk suma grand te yàgg na. ba ma koy xam tamit xaw ma woon ma daal suma teel. dëgg la parce que soo gisee. Mm-hmm. man yu bëree bëri du ma si mën a sori. Mm-hmm. man su ma demee Sénégal. waaw du ma du ma nangoo dem soirée kii du ma nangoo dem soirée kële. dëgg parce que showbiz moo showbiz moo nekk loo xamante ne nit ñi. Mm-hmm. fuñ la gis rek. dem si fee na ko gis nañ ngir soirée doo am indépendance bi nga bëgg. dëgg la boo boo demee fii ñu ne ci wàllu sec nga far. ba demee ah, ci studio ñu ne studio nga far. ba si mbëri sax ba si mbëri. Balla Gaye ñu ne. man am na ku gis mbër boo xam ne sama xarit la woon. waaw mu gisoo ànd ak Balla Gaye di ko moom nii. ma ñëw benn jour. si regroupement am mu ne bu Gris dugg. <laughs> ndax li nga ànd ak Balla mu la gis ak Balla Gaye te moom ma jaar ak moom jaaruma fa ak Balla Gaye. d' accord léegi dañoo bëgg comme yow xam naa ne wax li nga wax leer na mais man bàyyi ma rek man maa Mister Shake dinaa la poser ay question direct nga xam ne dinañ ci wax léegi li mu lay laaj mooy est-ce que li Sidi Diop def pour yow euh, loolu dafay yàq wala dafay defar est-ce que normal na Wally Seck di créer buzz am mu jël buzz Wally Seck na waxante dëgg ndax dafa jël buzz bi au lieu ñuy wax ci ne wayna way yu sundur way bu neex dañuy ne Sidi job momo plagier momo jël wayu est-ce que c'est normal wala c'est pas normal. buzz. waaw. yalla koy maye yalla koy deug la na na artiste yi mel na la. pas dafa du bon. musu def lu def kenn lu Mm-hmm. moo demee nii. Mm-hmm. tey nit ku nekk nag. Mm-hmm. li la sa xel jox rek yaa koy def. yaa koy def très bien très bien man loolu foofu laa la doon xaaree parce que loo xam ne def nga ko est mais pour yow pour yow Sidi Diop am na droit def loolu ndax police woowu ko ndax kenn woowu ko kon yow pour yow di Diop am na droit def loolu Matar Soubatel am na droit def loolu est-ce que am na droit def loolu. non xam nga Sidi micro la yor. waaw te ba muy woy man fekkeewu ma. dëgg la ba muy nekk studio nii fekkeewu ma ko. Wally ba muy nekk studio fekkeewu ko. dëgg la man mën naa toog fi ma fi ma toog Amérique bii sama bopp laay nekk. dëgg tey nag su kii di bombu cere. waaw du instant yi da nga yor sa boutique. Mhm. kii jaay yëre. ngeen den di jaay. waaw ah ku mhm. nekkee xam kii dox la rek. dëgg la xam nga parce que dañoo nekk génération boo xam ne ak xurusement lañ nekk. Mhm. foog coow bari. foog coow am da ngay recherché. waaw fi nga bëgg a yegg. waaw xaaral ma laajal la parce maa monsieur Cheikh ñëpp xam nañu man ragaluma laaj parce que dafa am ñoo xam ne dañ ne Matar Soubatel ci boppam moom moom la dëj gënal ngénte parce que gis nañ fi euh, euh, euh, kii nu mu tuddati Baye Zal moo fi njëkk wax wax jooju ba mu am problème ak ak ñoom Sidi Diop mu ne moom dëj moo ko gën a ngénte mais est-ce que du Matar Subatel moom lii mooy stylam stylam mooy nii la mën a def pour pour ñuy wax ci Sidi Diop ndax gis nañ kat ne temps yi Sidi Diop ñu ngi wax ci moom lii est-ce que donc Matar yëf yi du si du du euh, Sidi Matar Subatel la non mbir waaw mbir xam a laa gëm mhm. ku nekk na bay sawaar dëgg la ku nekk rek na bay sa waar parce que bu la waxee ku nekk mhm. parce que euh, dafa yaatu. waaw te ku nekk mën naa tibb joxe. géej la géej la. Mhm. li ma leen di ñaan mooy. Mhm. nañuy xool seen entourage. dëgg la entourage parce que. kee day génn jox kale kee génn jox kale. waaw li ma jaaxal voilà merci merci parce que man li ma jaaxal nan la Sidy Diop xamee. ak Matar man d'accord naa sax bul ko teg misère ndax bul ko teg misère Wally Seck moo nekk ci oto euh, Bouba Ndour tour avec mu ne buuba est-ce que may nga ma ma reprendre way boobu Bouba Ndour nekk waaw mais ñoom nu ñu def ba xam yenn secret yi Wally Seck génne marodi moom it mu génne marodi génne teg bu ko teg misère ci même jour bi waaw ah, parce que gis nga ànd ak mbooloo di dem Tafa Gueye moo ko mës a wax mu ne di ànd ak mbooloo di dem waaw mbooloo di àndal ne yàlla nga daanu yalla nga daanu yàlla nga daanu ngi beure ji ah. andal yow ngembu la ngem bokku le groupement di dem si mbolo da ngay àndal mu nan yalla daanu parce que ñom ñoy joxe yene information yi quoi tay sidi am guru groupe groupe ñoo xamne ne ñu sidi jox te dañ ko jégué wali sek amna ñoo xamne mu leen dimbali tout le temps te ñu wali sek deug la xam nga mhm. parce que duñu bëgg ku leen raw ah. amna ñoo xamne bëgg ñu vainqueur am ñoo xamne bëgg ñu ndaanaan ah d'accord d'accord d'accord d'accord man amul kenn koo xam ne dinaa la blème man li may ñaan si artiste ñoom. blème mooy jox kii toor. wala jox kale toor li ma lay ñaan mooy. Mhm. àdduna na lépp rafet. d'accord li waal di am mu ngi koy am. te si te Sidi ci dara. te Sidi mënu ci dara. Mhm. li Sidi di am. parce que dama fekkee. Mhm. Sidi Diop daloon nekk soirée Waly chaque jour. waaw xam nga. Waly Seck. daloon nekk soirée Pape Diouf tout le temps. ah d' accord d' accord d' accord. dañu doon concurrence Pape Diouf Wally Seck Pape Diouf Wally Seck n' ce pas. dëgg la soo bis bi. waaw léegi ñu ne Sidi Diop euh, Sidi Diop. Euh, Wally Seck Wally Seck te am na ay temps sax ñuy ñuy ñuy jéem a wax loolu sax ñemewu ma ko wax mais ñuy jéem a wax ne Wally Seck Youssou Ndour te loolu sax. moom warul warul sax wax parce que loolu blasphème la. blasphème keneen keneen dina ñëw. Sidi Diop tamit léegi keneen dina ñëwaat ñu naan Sidi Diop ak kooku. muy Mandiaye Seck. non ku mënti doon. ku mu tey mbër bi ngay àndal di dem suba suba su ma gisee may àndal moom su ma yow mu xam yow Mister Shake yow ma nga ma jege la mu yàq na waaw léegi léegi léegi kon yow li ngay wax mooy faramaare bi parce que faramaare yi nii fi métti na leen lool lool lool kon yow li ngay wax Wally Seck nan la war a man a fajee lii mooy mu dox yoonam te xam ne Sidi Diop du du ñoom lii mooy seen style quoi ak Matar Suba teel du ma ne Wally Seck nan la mën a def ba ba ba ba lii du am violence du du mujj fu fu fu gën a garaawe nii quoi. du am du am euh, violence ndax mbaali. Mhm. Euh, euh, am na ay mag yu ko yu ko encadré. dëgg la yoo xam ne soo xoolee waale bu njëkk ba ak léegi see différence. waaw waale déggatoo ko muy tontu. Mhm. déggatoo ko muy wax. xam nga te soo xoolee ba soo xoolee ba xool tamit ah Sidi Diop tamit. Mhm. am na ñu ko e, encadré ñoo xam ne nee nañu ko bul wax wala bul tontu wala nangam nangam li am solo mooy. fan si. waaw ak ñi commenté. Mm-hmm. ñooy wax lu bon ñooy wax lu ñaaw. ñoom seen biir su dajee dëj wala ngénte mm-hmm. dañuy nuyoonte okolaat ku nekk dem si yoon. kon yow daal pour yow lii set nañ ko conclure foofu pour yow daal lii du lu garaaw Wally Seck nañ nañu xam ne ñoom suba teel léegi lii la ñu décidé def. parce que def nañ ko ci five ba ci bii am na sax beneen événement dama fàtte lanati la loo xam ne dañ ne Wally Seck dafa def lii Sidi Diop moom tamit daal di def lii. kon yow daal euh, Wally Seck ni mu ko war a xeexee parce que gis nañ ko muy def euh, benn duo ak Chris Brown par exemple hmm? Sidi Diop tam gis nañ ko mu génn ay son yu bëri yu neex temps yi pour yow lii day yokk musique bi wala da koy da koy wàññi xam nga àdduna waaw rapport yëpp àllanta lañ nekk dëgg la te am na rapport yoo xam ne samay booy lañ man am na mhm. rapport yoo xam ne samay booy lañ damay ni yére di leen jaay ay dàll dinañ yobul ay montre ay lu ne merci merci Griff li bëggon na ko sax yaa fatel wa égalil égalil xam nga ay montre lu ne très bien tey suma uh-huh. neexon tay uh-huh. ci sama boy yo nga xam ne yow xam nga ñom yang tëng uh-huh. ah ñom liru liru béebi ñom ñëpp alanta lañ dëkk waaw tay kuma neexon tay jox la link ne la kaay wayandoo ki wala nag ah, kon xam nga boy boy rapper boy booy yëpp alan ñeneen ak ñeneen hmm. xam nga hmm. mais tey bëgguma dugg si benn milieu showbiz bi parce que dafa doy war dafa sensible dëgg la dëgg loo wax loo ñu ne waaw ngir ngir la far wala fee la far man format kenn ku ma gis xam ne man nongulu lay déglu man nongulu yow dafa seex xam nga ne nongulu lay déglu te waali suma nit la waali naa la deux mille laa ko xam mhm. année deux mille mhm. Sidi Diop deux mille deux mille huit xaw ma deux mille dëgg la waaw léegi tegal sa baaram foofu ma laaj la li tax ma ma kontaan ci li nga wax rappeur parce que genre clash ak genre li feud moy feud ci yi lañ daan gis mais dafa ont bi malax bi un clash Yo lolou parce que ay temps dañu mais légui Sidi Diop Seck yore taxi kii ci Range Rover ñukoy ñuy wax ay ay problème euh, euh, almadi ngi wax Wali Sidi Diop mais li ci rappeurs yi lañ ko xamé lan mo tax nak légui mu dugg ci mbalax bi yow loolu loolu nan la ko ko expliquer aduna aduna moy tourner hmm aduna moy tourner ala ne ala tol bi da fa yatu mhm. te ku nek man nga xaj xàllil sa bop witil sa bop wala nga mhm. bayal sa bop deug la xam nan nit ñi nek ci li ñu war a te bàyyi loolu daal nga leen di dénk nañ jeexale foofu waaw. te nit ñi te bàyyi nit ñi nek ci li ñu war a nekk. Mhm. waali kàcce ngaa ma macha allah. Mm-hmm. mu ngi dox li mu war a dox mu ngi dimbali ay doomu aadama mu ngi taxaw ñuy wax lu taxaw. waaw. ñoom Sidi. waaw kay loolu laa ko mës a dénk. dëgg la waaw kay li li ma bëggoon wax sànq mooy Wally Seck dafa génne benn woy ji jagle ko xale yi dee ci géej gi. Sidi Diop tamit même jour wala wala quelques jours après mu génne benn woyam boo xam ne daf ko euh, jagleel euh, nu mu tuddati euh, ñi dee ci géej gi bu ñu gisee Wally Seck génne. Euh, waaw wooy mu tudd son euh, euh, choc choc son bon ne Dakar est-ce que yow avez des dégg choc choc mais est-ce que dans toutes les ah, sortes. dans la conversation est-ce que ci artiste. artiste. waaw ku nekk buzz ngay bëgg rek. dëgg la te génération bi nekk nii ñoo laaj loolu ñoom. Sidi moom mu ngi am buzz moom. non génération bi nekk nii. moo laaj loolu. moo laaj buzz dagg san teg xeex bi mbaju. xam bu njëkk ba. Mhm. nongolo day dóor sax war a dóor jodi. Mhm. Pape Diouf war exemple. waaw nongolo foo mu bosom bàyyi nit ñi dem si Pape Diouf. mais léegi loolu amatul. loolu yombatul. d'accord xam nga. Ah, ok te ñoom li ma bëgg mooy Sidi. Mhm. Wally frère am la waaw moom moo ko doon wax. dëgg la te tey Wally. waaw nit ku am xol bu rafet la. dëgg la am yërmande la. Mm-hmm. man nit ki may xool si jikko rek. dëgg tey lenaa naa la la ma seq ak Wally sequma ko Sidi. seqoo su jàppale di am kon damay jàppale Wally Seck. Mm-hmm. xam nga xam nga mais doo fa man man man man mm. tey su ma demee tey Sénégal Pape Diouf moo may invité ray xar teg ganale ma gatale ma te ketchup sa waay la te ñëpp xam nañ ñu ketchup mel ak man man du question ketchup moo tax ma xam Pape Diouf mm, ok xam naa ko bu njàgg dëgg la mais su ma ñëwee Sénégal damay woow fu mu nekk mu yóbbu ma lekk ma naan su may déglu waaye damay jooy Pape Diouf mais concurrence bi daal mais concurrence bi ñom ñom ñom Subatel ñoko bëgg parce que génnoon ñu ci benn wax ñu né jël il faut que mu am am kon lool c'est une concurrence bo xamné c'est normal dal mais Subatel day liggéey waaw yow so yoree sa jo mhm. da ngay bëgg sa jo jëm karam deug la mais yow bu dee waali moy mooy moo moo mooy boot bukki bi ñëpp di ko mbaw quoi mais yow mhm. so nekkee sama coach da mhm. ngay bëgg ma gëna a dóor bi pour bàq bi deug la mëna dem so amé kemba pour dem guerre ma gagné combat boobu. te artiste tant que ñu ngi wax ci yow ça veut dire que am nga loo def lu baax. xam nga te ñu ngi wax ci Sidi Diop lu bëri waale moom ay buzz. wax nga am solo mooy am solo mooy. waaw nga yor say CD jaay ko mu jeex. très bien. man loolu laa gëm. nit ñi di seetaan say say say. li li am solo mooy. waaw ay titaay yeeg ay kii tooñ na kii ak kii sàcc na son kii ak. kii wax na léeg-léeg nañu xool ci ñoom ñaar kan mooy njëkk indi disque d'or. sooy jeexagul de. Mm-hmm. gis nga su ñoon jëf son nongoloo sax. Mm-hmm. di ko takkale yeneen am way yoo xam ba àdduna tukki ah am kon daal man ñu xool ci ñoom ñaar kan fi indi disque d'or non même du disque d'or hmm. ndax loolu si showbiz bi xam nga yombatul hmm. parce que tey mel na Youssou yombul seven second parce que Youssou ah. du question seven Youssou Ndour dégg si coow mosoo dégg si bruit waaw concurrence ak ak Thione Seck ba deug la waaw mais griffe nañ nañ nañ yemale parce que nañ parce que dañu bëgg wax ci yenen ci yenen sujet ya may daan now voilà voilà gars yi like leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen am.